asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibé yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax a baax tey jii nag di bisub dibéer war a tolloo fukki fan ci safar atum junni ak ñeent téeméer ñeent fukk ak juróom ci ati gàddaay gi waaye nag war a tolloog le 27 a ngi ànd ak nag MKTV di Muxaddamatul Xidma mi nga xam ne ñoo farewoo mbirum jumaa ji ak yi ci aju ñu ngi fi nag tey ci bis bu tedd boo xam ne ni bisum njàngum alxuraan la waaye nag ci teewaay suñu xabban moom Cheikh Amadou Fadal ñu fas yéene ànd ak yéen itam ci temps yi ak mboole seen li nga xam ne am na fi ci loo xam ne warees na ko mën a jàllale incha allah ngeen ànd kook seen télévision bii di MKTV incha allah dara du leen ci rëcc ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di fas yéene ànd ak yéen ci liggéey bi tabaarakallah waskur fi al سميته بالبدر يا من قبلت بسماك بدر يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون غير خير صل وسلم وتبارك أبدا على الذي تقديمه منك بدا وهو الذي سميت بالباري ودار وصحبي بلا انتهاء وكن معيسني بحق العزبلة وانشر علينا بركات البسملة وسل يا رحمن ولتسلم على النبي حبيب كل مسلم وهو الذي سماده مدير ولا لواسف ومن يدير وانصر علي بركات الفاتحة وجعل خلامي خير باب الفاتحة وصل يا رحيم ولتسلما على الذي به كشفت الظلما وهو الذي سميت بالديار والآل وصحبه ذوي الحياء وانصر علي بركات البقرة يا من يواجه لخير سقرا وخيرها من كل باب النار والخزي والخسران والسنار وسل يا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 mbokk yi ñu seetaan di ñu seetaan ci MKTV muy Moukhaddamatoul Khidma TV euh, fu ñu mën a nekk ci àddina bi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaaro di leen ndokkeel ci weeru safara wu tedd wi ak bis bu mag bi ñu dëgmal di jiital ci nuyoo bi ak ndokkeel gi ak siyaar bi Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal sunu borom yàggal ko fi te wéral ko ak mboolem njabootu Xaadimu Rasuul yëpp. di nuyu ak a siyaara eh, njabootuk Serigne bu Soobe di ci jiital bay Serigne bu Soobe bu soo mii xalifab Serigne bu Soobe waaye di nuyu njabootuk Serigne Afia bu soo bi nga xam ne tey jii ñoo waral jataay bi yëkkati kàdd ci njiital Serigne Alxaaji Fadilu bu soo Ndumbe moom Serigne Cheikh Fatikan ne di xalifa Serigne Afia bu soo ngeen gisee jotaay bi nag njabootu sëriñ bu Bousso ñoo fi nekk muy bànqaas yi ci aju yëpp ñu ci sëriñ Modou Fatikan ba ci sëriñ ak mboolem njaboot bu jigéen gi ñëpp ñu ngi fi muy jërëm ñuy tudd ñëpp waaye daal njabootu sëriñ Afia Bousso gépp képp ku ci setoo daal ci góor ak ci jigéen ñu ngi fii ci. jumaa ji ci baasu isbu tarxee bi lan moo ko waral nag mooy Sëriñ Tuubaa Cheikh Mouhamadoul Mountakha moo yónni Sëriñ Xabaan Mbàkke mi nga xam ne moo jiite lépp lu aju ci wàllu daara alquraan yi fii ci ak njàng mi yabal ko ci sëriñ Alxaaji Fàdilu Buso Ndumbe ñu xel fa sëriñ Afiya ne ko dafa bëggoon bu ñu àggee ci dibéer ji ñu ko tàmbalee juróom-ñeenti waxtu ci suba ba ba ñuy nodd tusbaar képp koo xam ne aju nga ci sëriñ Afiya Buso ñu daje fii ci jumaa ji fii ci mbaar bi ci wetu si kër sëriñ Fàllu mbaar def ngir jàng alquranul karim ak xasida ba bañu nodd tisbar ngir waajale ko màggal gi muy addiyee Cheikhul Khadim di addiyee njaboot gi sëriñ Afia ak addi mboolem mbokk yi ak addi askanu murid yëpp yoonu murid yëpp sëriñ si ak taalibe yëpp rek loolu mooy sabab jataay bi tey moo tax su ngeen xoolee ci image yi da ngeen gis njabootu sëriñ Afia bu sa gépp ku wax alquran nag wax kër Serigne Afia Bousso ci cosaan ndax Serigne Afia daara ji nga xam ne yoroon na ko di jàngal ak njabootam ak taalibe yu mag yi fii ci Daaru Marnaan ak ci Bustaanul Aarifiin daara ju rëy rëy rëy la woon loolu xam ne kàngam yu bëri génne nañ fa moom ci boppam it nag ci biir loolu ngir. tegtale daara ju am solo ji bindoon na alxuraan ak ay kaamil yu bëree bëri ko sëriñ Touba sëriñ bi di ko yéem bañ mu yàgg mu ne ko fa nga nekk day saytaane xamu ko fa nga ne woon ba def ni ci njaboot kon toog fa di jàngale alxuraan waaye mu doon ci wàllu jàngal ay doomam ci man alxuraan ak man mbind mu rafet nga xam ne suñ dee lim ci yoonu murit ñi nga xam ne dañ leen di naw ci mën a bind ak rafet la ko soo ne benn ci yoon wi doona ñaar mukkute tuddoo kër Serigne Afia Bousso nii nga dellu ci suñu mbindum bàyyi Serigne Bousso Ilimane suñu Abdoul Moutalib wala suñu mbindum bàyyi bàyyi Abdou Assawaalo ak ñëpp rek koo ci gis am mbindam rek suñ Cheikh Fatikan ni macha allah loola it moo law ci njaboot gi ba léegi nii daara yooyu ci njaboot gi ndax buñ dee xool ci ñu nekk ci njabootu Serigne Afia ci ñi nga xam ne yor nañu ay daara ak liñ mokkaloo ci alxuraan mën nañ cee jiital ki nga xam ne mooy xalifaam di Serigne El Hadj Fallou Bousso nga ne ay téeméeri téeméer fii ñuy waxee li fa nekk ci kër gi ci ay jàngalekat alxuraan kenn xamut lu mu ay junni lañ téeméeri téeméeri téeméeri ki junni mokkal nañu alxuraan te bàyyi ci njabootu Serigne kon nag su Cheikh Mouhamadoul Mountakha sàkkoo ci ñoom ngir ñu. jagle leen bis bii ngir dafa delloo battu ca ndaala muy loo xam ne nag mbégte mu rëy rëy la ci njabootu sëñ Afia Bousso gi am mbégte mu fees dal dal dal dal xol bu sedd guy kon ñu ngi ñaan ci darajay sëriñ bi Cheikh Mamadou Mountakha darajay sëriñ Touba darajay sëriñ Afia ak sunu waajur ya jataay bi sunu borom nangu ko te def ko addi yonente bi sallallahu alayhi wa daf ko addi xaadimu rasul xam naa ci kanam tuuti incha allah da ngeen xam limu kaamil yi nga xam ne jàng nañ ko ci biir loolu xam ngeen ne ku ne xasida wax kër sëriñ Afia Bousso ba ngeen dalee dégg ñuy jàng ba léegi kuréel yi ngeen dégg ñuy jàng yëpp. ay ay njabooti Serigne Afia Bousso Rogne di ay satam dégg lu man ñetti kuréel ba ci kuréel bii jël léegi nii nga xam ne ñoom alxuraan mi dañ koo booleeg njàngum xasida muy loo xam ne moom la kër gi xam moom la dond moom la miin te ci la nekk. muy daara yi ak jàkk yi ak xasida yi loolu it la Sëriñ Muntaxa xam ba tax mu jox ñu ndigal li kon ñu ngi ciy sant bu baax bi ko gërëm di ko ñaanal di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfeex ak taysir bi barakati xaadim rasul xam naa ñu ngi tenk kàdd yi foofu lii daal moo waral jataay bi ñu nekk ci incha allah ba sëriñ bi yeewee ñu ci njiital sëriñ Mouhamadul Xabaar Mouhamadul Fadal waaye ci njiital sëriñ El Hadj Fadilou Bousso mii xalifa sëriñ Afia ak njaboot gi yëpp ñu ngi nii. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ginnaaw bi ñu leen di ziare ñu leen ci weeru tedd bi di weeru safar. safarul xayri weer woo xamante ni ci fukki fan yi ak juróom-ñett la Abdullahi wa Xadim rasulillahi jox woon ndigal ci ñu sant la ci borom bi tabaraka wa taala ñu teew fii nag jii ci wetu mooy xalifa sëriñ Afia Bousso mu ànd ak boppi kër yi sëriñ Afia Bousso yëpp ñii si woote bii nga xamante ni tam woote la boo xam ne bu ñu ko wuusee ñu xam ne wuus ne ñu war a wuuse ndax dafa mel ne liñ doon wax naan woo ab sàmmkat ci kaay ñu naan soow nag dana ko yomb lool muy jàng alquran ak jàng xasida bu ñu ci wooyee waa kër sëñ Afia Bousso woo nañ leen ci loo xamante ni luñ sawar la ki leen ci woo itam di sëriñ alxaaji xabbaan Mbàkke moom Seex Muhamadu Faadal ñu sëriñ bi dénk wàllam jàng alquran bi loolu nekkaat leen beneen cër ndax bu nekk xam ne diggante sëriñ Afia Buso ak Seex Muhamadu Faadal Mbàkke loolu lépp itam ma koy def ci ndigalal Seex Muhamadu Muntaqa xafisahullah waraahu kon bu ñu fi teewee ci waajtaayu màggal bi ci njàngam alquran moo xam ne ni wàcc nañ fi ak dund bu takk lool ci ay kaamil alquran waa kër Sëriñ Afia ñu seetaan bi ak ba ci seetaatam bi teew si waaye itam sëriñ bi jot li ma léegi ne sëriñ Mourtada Mbacke moo xam moom sëriñ Mouhamadou Fadal Mbacke xam gi xam diggante kër si ñaafi ak sëriñ Fallou tax na mu fab daaraam ñu ñoo bokk si jàng mi loolu itam ñoo ko ci sant lool di ko ci gërëm xam ne ab taxawaay la taxawaay boo xamante ni yàgg na koo def ci lu mel nii njàngam alquran nag bu ñu ko dee waajalee màggal Touba def na war ndax ki nga xamante sëriñ Touba la di laan moo moo digle màggal bi koy santale borom bi tabaaraka wa taala waaye ki woote màggal gi nag ci ñu defee ko ci Touba mooy Cheikh Modou Fadal moom moomee nag ci atam 1962 euh, bu ñuy def discours am ñu xutbaam ci màggal gu mag gi dafa waxoon ni ñu màggale waaye dafa waxoon ne azimuhu bi tilaawatil qur'aan la ci jiital mooy na ngeen ko màggal ci jàng alqur'aanul kariim wa bi dikri wa salaatu ala nabi wa itaami taami wa silati rahim wa siyaadati saalihin wa mudaarasati siyarihim loola la waxoon nañ ko ci màggal lam ci jiital kon mooy jàng alqur'aan kon fekkente ni ku fi toogal sëñ Tuubaa mi ngi soññee bu ñu waajal bis bi ci njàngin alqur'aan ba mu si ci Seex Mouhamadou Mountakha yàlla na ko yàgg a taxawee mu soññiwaat ci ci ndigal la lu yàgg lu wàcce woon ci alquran la ndax alquran moo njëkk a wax ne nañ may jàng ci faqra u maa tayassara min ak faqra u maa tayassara noonu kon nag ndigal lu yàgg waaye ndigal li muy yàgg itam Serigne Touba radiyallahu anhu feddliwaat ko ne woon bépp taari bu aju ci man nay saxal di jàng alquran kullu muridun bi yaloosu fal yudum tilawatan bi xayri dikrin qadrusin Euh, loola nag ndigal lu jóge ci kilifa bu toll na moom dafay tolloo kon su la digalee déel la ca da nga koy nattaleeg ndigal ya yaa xamante ni yu neex ya la woon kullu muridin bi yële si bépp taalibe aju ci man dana texe da nga koy lëkkale ku lu muridin bi yële si xel yi di di laa watan dafay zikkin xaddu si xaddu si kon bala ngaa jot ca texe googee dangay ngay jot ndigal yooyu te bokk na ci ndigal yëm joxe nag nee nañu bépp taalibe aju ci moom nay faral di jàng alquran di ko saxee waxtu itam ngëneel yu bare bare bare amaanu man yaqul kitaaba daa'im wala ya'luhu dawaaman daa'im mooy képp koo xamante ni yaa ngi jàng alquran sa kóolu te dafay sax waxoon na tam eh, man qara alqur'ana min adan amin qad qultuba wal qalbu minni mutma'in ku jàng alqur'an da nga ànd ak da nga mucc ci mboolem bu rew luy loroo daneen wax loolu nag ànd ci xel mu dal ak xol bu sedd nag moo koy wax xam ne li may wax nii la amee kon nag ñu dee jàng alquran ñu woo ci waa kër Serigne Afia Bousso nga xamante ni xëyam ak ngontam lépp jàng alquran la woon waaye nag ak xasida ndax kuréel bi ngeen sefoon léegi ay sëtaatam la ñoo xamante ni ñoo jàng xasida yi ñu fi doon jàng ni royee ko ci seen i wa baay ak seen i maam sax nag ndax waa kasi Sëñ Afi Buso bokk na ci njëkk a yëkkati xasida ci ginnaaw Sëñ Tuubaa moo ko sëñ Mor Kuna Mbàkke moo ko njëkk a yëkkati di jàng ak xasida daa wutal ak njabootam ñaari àll àlluwa alquran ak àlluwa xasida nga xam dañuy mokkal alquran mokkal xasida bu bëree bëree bëri daa bind ay kaamil di ànd ak njabootam di ko jébbal Sëriñ Tuubaa wëlbatiku itam tam bi muy Serigne Mouhamad Fadil mi ngi ci daaru Fadil ba ci ay sëtaat sëtam ak sëtaatam loola nag kon daare alxuraan itam nekk ci dëkk bi tasaaroo ci borom keppaaram ak ci sëtam ak ci doom kon bu ñu leen wooyee ci njàngam alxuraan ngir dundale ko ak waajale ko bis bu màgg boobu sawar nañ ci lool ci wuusi ko moo tax ñu dikkee nii jàng dañ ci jàng ci ay kaam yoo xam ne mënuñu ko teg sax ngir bari waay bi ngir nag waajale ko màggal boobu di ñaan yàlla suñu borom tabaaraka wa taala ñu yegg ci ak jàmm ak salaam sëriñ bi nag nee na ñu ngi sant sëriñ Yuusu Jóob nii nga xam ne moo jiite xisbu tarkiya ci taxawaayam yi weesu ak yii nga xam ne ci lañ nekk te xam nañ ñu jëm kanam itam incha allahu noonu lay rafete ñoo leen di sant ñaan li ñuy liggéey mu tas seen ngërëmal Sëriñ Tuubaa ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp kàddu gi daal xam naa dañuy nodd gi day bëgg a taxaw moo tax ñu ngi koy guddal waaye nag ku la woo ci njàngam alquran waajale ko màggale Tuuba def na la ko war waaye ñi ci taxaw itam def na kon ñoo ngi ñaan li ñu fi jàng ñu teg si ca ngërëmal yàlla ak yonent bi ak Serigne Touba ak waajur yooyu itam ak maam ya ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi al amin wa ala alihi wa ashaabihi wa xayra xadimihi cheikhul xadim wa ummatihi wa sallama taslima asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax ci nuyoo boobu nag di leen nuyu ci nuyu Cheikh Mouhamad Cheikh Mouhamadou Xabbaan Mbakke ibnu Cheikh Mouhamadul Fadal muy nuyu ñëpp te di leen ziyaara bu baax di leen dokkeel bu baax a baax ci jëf ju rafet ji nga xamee ne mi koy defee ci ndigalul kilifaam ju tedd ji Cheikh Mouhamadou Xab Cheikh Mouhamadul Muntaxa ñu ñaan suñu borom bi tabaaraka wa taala mu yàgg fi lool te ànd ak waaye ñun ñii it noonu la ñuy ñaanalee sëriñ Xabbaan moom Cheikh Mouhamadul Fadal ak njabootuk sëriñ Fall yëpp ñu yàgg fi lool te ànd ko wér ci njiitalu sëriñ Abo Albaraka sëriñ bi di sant bu baax a baax ci jotaay bu am solo bi nga xamee ne jotaay la boo xam ne dañ ko wooteel Cheikhul Khadim muy jotaayub alquran te loola nag moom mooy wooteel nañ sëriñ Touba lim gën a bëgg ci àdduna li nga xamee ne moom la jël def ko muy ak koomteem mooy ba mu waxee ne kanzil kitaabu wal xadiisu wal adab laa jam'u fiddatin wala jam'u zahab ñi di ko defee fii ci buntu kër Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacké moom mi nga xam ne moom moo woowoon mboolem murid yëpp ci ñu ñëw fii ci biir jumaa ji wala fii ci Touba ngir dundale fi li nga xam ne moom mooy li sëriñ bi woote woon ci ne nañ ñëw santale ko yàlla sunu borom bi tabaaraka wa loolu moom moo waral nag ci ndigalul sëriñ Mouhamadul Muntaxa mu jox ndigal sëriñ Xabbaan moom Cheikh Mouhamadul Fadal ci. ñu seq koog mboolem daara yi nga xamee ne ñoo nekk biir Touba gi yëpp ngir safar gi ñu tàmbalee ba léegi bis bu set ñu ñëw fii di jàng ay kaamile alquran yoo xam ne nii saa maanaam ku ñëw ku ne rek sa yéeme ji nga ci wane ak it li nga ciy def te di ko def ci jëmmi si Seexul Xadim bi dong tax mu yéeme lool. tey jii nag ni ñu ko xamee ñu ñëw ànd ak waa ndaamaatu ci ndigalul sëriñ Alxaaji Buso sëriñ Alxaaji Buso mi nga xamee ne moom mooy xalifa sëriñ Aafiya sëriñ xabaat moom Cheikh Mouhamadul Fadal di sant bu baax a baax a baax njabootu sëriñ Afia gi yëpp ci taxawaay bu rafet bii nga xamee ne taxawee nañ ko sëriñ bi ñëw ànd ak njaboot gi yëpp ñu ñëw di dundal loo xam ne nii lu fi seen maam yi bàyyi woon la lu fi seen maam bàyyi woon la ci jàng alquran ak xasaayid waaye di ko def nag ci yëkkatiku ngir jëmmi Seexul Xadim rek sëñ Afia kenn ko nekk xam na ko ci taxawaay bi nga xamee ne amee woon na ko ci kanamu sëriñ bi. rawatina nag di yëkkati ay xasaayid al xadim yoo xam ne nii da koy def ci kanamu sëriñ bi ba tax na njaboot gi noonu lañ leen gisee tey jàng alquran ak xasaayid moom lañ fi def sëriñ bi di leen sant bu baax a baax a baax a di sant sëriñ alhaaji bu baax a baax a baax ci taxawaay bu rafet bii nga xamee ne taxawee na ko nga xam ne moom moo ñëwal boppam ñëw ànd ak njaboot gi te lépp bi ñu koy def defuñu ko dara lu dul defee ko ngir liggéeyal sëñ Tuubaa ci bisam bu tedd bii xam ne moo wax ne ñëw leen ngeen santale ma ko yàlla ñu di ko jiitalee nag ci ay jàngi alquran bu karim ak i jàngi xasaid di ko defee fii ci mbaar mi nga xamee ne mbaarum waa xisbu tarqiya la ñu di ko ànd ak ñoom ci njiitalu sëriñ Yuusu mu di ci taxaw taxawaay bu am solo boo xam ne nii sëriñ bi mu ngi koy sant bu baax a baax a baax kon nag sëriñ baa ngi sant bu baax a baax a baax ñu xam ne rek lii rek moom mooy liggéey bi mooy maanaam euh, euh, dañuy wooteel maanaam sëriñ bi la ñuy jéem a euh, sant sant lii lépp sëriñ bi la ñuy jéem a sant rek ndaxte lépp lu ñu yëkkati ba di ko def sax dañuy xam ne moom mooy borom alxuraan jii ñu di ko jàngal sax far moom mooy borom boromin woo xam ne nii dafa sax dakk nag malakanil quraana tamlikan yadum la wax suñ tubaa daa wax ne alxuraan suñ borom mooma leen na ma ko ci moomi leen woo xam ne ni day sax dakk moo tax lii lépp ci liñ fi yëkkati di fi jàng ci ay alxuraan bis bu set loolu du xarwa loolu ku ko xam ku nekk da ngay xam ne taxawaay la boo xam ne nii maanaam ñi nga xamee ne ñoom ñoo moom wala ñi nga xamee ne maam ñoo dëkk fii ci dëkk bi di ay boroomi daara yoo xam ne ni li ñuy taxawee li ñuy taxawee lépp ngir daara rek la loolu alhamdulilahi rek la ñuy wax kon sëriñ daa ngi sant ak gërëm bu baax a baax a baax ci ndigalam ñu di ko waxee ci ndigalam waaye mu di ko defee it ci ndigalul sëriñ Muhammadul Muntaxa ayadahu llahu wa nasarahu ñoo ngi sant bu baax di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. solo moom sëriñ Thierno Bousso moom sëriñ Afé Bousso. alors tey euh, yéen a doon taxawee njàngum alxuraan moo xam ne ndigal la bawoo ci Cheikh Mamadou Mountakha euh, mën a jàpp. waaw jërëjëf tey njabootu Serigne Afia ñoom la Serigne bi joxoon ndigal ci suñu jiital suñu kilifa Serigne Alaaji Fàttali Bousso Serigne Afia Bousso nag doomu Serigne Bousso bi la Serigne Bousso bi mook soxna Jaara ñoo bokk ndey ak baay Serigne Afia Bousso mook soxna Awa Bousso mi waajur Serigne Fallou ñoom ñoo bokk ndey ak baay ñu xam ko nag ñetti daara moo tax sëriñ bi joxoon ndigal njaboot yëpp tey ñu daje fi bi ñu ko waxee sëriñ bi organisé na mbooleem njaboot yëpp fu fi daara nekk ñun ñëpp soññoon leen naka jekk sax ñoom dañ daan def bu weeru mag bi commencé ñu tam di jàng ay kamil waaye comme ndigal dañuy dabwaat tey rek ñu gën a soññu tey mbooleem luy daara ci kës ngaa fi bisu mi ngi fi te kër gi këru daara la ndax sa ñaar daara ju mag lañ yoroon jamono Sëriñ Tuubaa bi mu fi njabootam ay daara yu mag lañ yor ñu ci ràññee alaji sëñ bu sa ilimaan rek naka jekk kër la bu ràññeeku ci daara alxuraan ràññeeku ci mbind ci mbind alxuraan ak mbind xasida ni ñu amee mbind yoo xam ne dañ koy ràññee ci yoon wi mu am mbindum njëriñ dafa am mbind moo xam mbind yëpp daje nañ fi tey bi ñu xëyee ci suba ba léegi ñu ngi jàng alxuraan ba tisbaar jot yàlla dogal na euh, jàng li ñu fi jàng ci ab lim toll na ci ñetti téeméeri kaamil ak fukk ak ñett muy 313 kaamil njabootu suñu affaire bi yooyu yëpp daje nañ fi jàng ko ci ndigalu Cheikh Mamadou Mountakha ànd ko ak comité organisation bi ànd ko ak sëñ Xabban Mbacke mi nga xam ne mooy jiitu moo jiite mboolem di jàng alxuraan indi ko it ak jëwriñ sëñ Youssou Diop ak mboolem daara Hizbut yi ak sëñ Bassirou Abdou Khadir mi nga xam ne moom moo a ñëw ngir jiite comité organisation bi kon daal jaboot si daayira ku yor daara ci gi ak njaboot bi yëpp ànd ak kilifa yi fi nekk yëpp gis nañ kilifa yi fi nekk yëpp ci kër gi lañ bokk te ñun ñëpp kenn ku nekk xam ne nii ab lim la ci lislaam ndax jëy suñ doo xam ne ne xare bi nga xam ne mooy xare bi amoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lim bi nga xam ne moom la julli tolloon 313 la ñu ñu ñu dàkkaale lim boobu ñu def ko barkeeloo ci màggal bi ngir mu nekk addiyee ña yéene yool bi nag Seexul Xadim yéene ko mboolem jullit ko sëñ Muntaxa mu yàgg fi loolu ànd ak ñëpp ak mboolem njaboot sëñ Tuubaa yëpp ak mboolem taalibe yëpp ñaan yàlla bis bi ñu àgg jëm ñu àgg ci ak jàmm ca da lépp luñ ci jëf ci lu baax ñu day jël ngërëmu suñu tubaab loolu jàngum ah, xasaay yi waaw jàngum xasaay yi kër gi moom ku ne xam ne ne si jaafi bu su bokk na ci mag ñi njëkk yëkkati xasaay yi ànd ko suñu tubaab di këru xasida bu seen laaj di mool xasida yi bëri na mbind moo xam ne ñu ko bi jàng nañ fi kuréelu waa kër sëñ Fallu bi jàng nañ fi kuréelu waa kër sëñ Buxaari jàng nañ fi ku si ñaar fi Bousso da tudd si ña suñ Fallu tudd si ña bu xaajib ñun ñett kuréel yëpp jàng nañ fi buru si xasida it naka ñett ñi ngi fi a mujj yi kon màggal gi ponk yooyu yëpp la kon xasida yi tubaarkàlla jàng nañ jàng nañ fi kër gi it naka jekk këru xasida la goo xam ne ay kuréel xasida yu mag ñoo fi nekk ndax si ñaar Bousso bokk na ci mag ñi nga xam ne ñoo njëkk ñoo njëkk sàkku Serigne Touba wax ne ko sa xasida yi lañu bëgg di ko yëkkati ndax Serigne bi bi mu nekkee ci sànci Touba bu njëkk ko daan bëgg koy ñu moom bokk na ci ñu sàkku ci bi ngir yëkkati xasida yi Serigne bi danañu léegi ñu def ko Serigne bi rafetlu ko lool loolu moo indi njàngum xasida ginnaaw bi nag lañ law di law di law ba ak si biir kon daal boole nañ alxuraan ak bu yaatu yaatu la boo xam ne ndax dañ koy bind di ko mokkal ndax njabootu si ñaafee ay mos naa ànd ak i njabootam nettal nañ ne ñoom de yéex nañoo xàmmee alxuraan ak xasida ndax seen wàjjo dañ naan bindal àlli yoo xam ne àlli alxuraan la leen la li ñu mokkal ci ay xasida ci yoon ñu bëri di delluwaat ci xasida yi ñu gën a wér ñu njabootu si kenn xamu toll nag nag njaboot gi bëri na xasida yi ñu mool murid di ko jàng lu ci ëpp ñu mbind wàgg sëñ Afra Basiru kon daal loolu mooy bis bi ci alxuraan ak xasida noonu it lañ ci def yëpp ñu ngi sant ñëpp di leen sant yéen ñi nga xam ne yëpp yéenay site internet yi nga xam ne njàngalem sëriñ bi rek moo leen ñor yéen ko saare fu man toll yàlla yokk leen bu doo leen ay télévision yu gën a kawe te ñu dajee si sëriñ Tuubaa asalaamaaleykum